bala ñoo dem da leen a war a sant da leen war a gërëm ndax doomu aadama yi danoo cher de cher doomu aadama nag mënul weesu nga woote mu dagg yitteem yépp ñëwal la sunu boor mooy sabab ak mbokk waaye jikko ju rafet mooy boole ay nit yow nag dina am lu ma leeral mbooloo mi taw fexe yaa ngi may dégg yow loo am du sens mérito nga ko ndax tubaarikàlla kilifa gi ñëw gi fi ñëw léegi muy sëriñ Serigne Moutala moom Serigne Moustapha moom Cheikh Mamadou Lamine Baara moom Serigne fal fii la ma fekk jël ma ñoom fu nu ànd oto bi yëpp yow rekk la ñuy waxtaan bi ngay jógee ci daara Serigne Saliou ñëw Touba. ah danga daan sa doole nag ci ni nga ko war a daane bi ngay yor sa kees gi la sëriñ buub doon wax naan tàngal laa daan jaay yor kees ba tey boo dee tudd premier milliardaire Sénégal moom la yow foofu nga jaar danga nga nekk Touba yor sa kees di jaay lii ngay jaay di dugg ci kër yi di dugg ci kilifa yi di def porte à porte di wax ak nit ñi ba yàlla dogal lii am. man nag bi nga yëbbee place keroog bi ngay intégré marché sang jaaxlewu ma keroog bi ngay intégré Kër Massar ma Kaolack jaaxlewu ma Thiès jaaxlewu ma mbuur jaaxlewu ma ndax damaa xam ni lii wërta yam fii dong moo tax du ma jaaxle ku naan lii daan def jaaxal na ma kat da ngaa xamut fi daan jaar waaye boo xamee fi daan jaar danga xam ni daan lu ma am rek war na koo am te yëf yi ca kanam la jëm corniche Daara Jolof bii tey ngay ibbi place fi ci Touba Daara Jolof dana fa am dana am Linguère dana am Fuuta dana am Matam ndax nag tubaari kàlla yaa ko liggéey waaw damaa xam da xam de ndax da koo liggéey ba noppi li ma gën a neex ca yow sa mbokki bopp yi yàlla daf leen a boole waaye nga ànd ak ñoom ci sa jikko ju rafet ak seen jikko ju rafet dan yow mi yaa dis gor yow mii yaa baax yow mi yaa bari valeur yow mii yaay nitu qualité ndax da deful dara te waxtaanoo jeg say mbokk defoo dara te jiitaloo leen ci nit nag Cheikh Fall dafa waxoon ni koyof foyof waaye ku dis diigu jamonoy tay nag mën nañ koo teg ndax barki démboo Njaay ba tolo joolaa diisee daa suux waaye Cheikh Ibra bi mu oyofee daa raw ñëpp kon waxam jooj day day day day day day firndeel lool nga woyof lool sarak rakk jii di Mohamed Mbuub ak Serigne Saliou mais amut looy def te jiitaloo leen ci kii nag wax nga léegi am na ko wax léegi taw feex yaa ko wax keroog bi muy sant Serigne Saliou euh, jël parrain bi def ko Askia ture keroog Askia euh, may na ma ci bisam lu mu lu mu mustamay maa ko wax man Abdou may na ma fu ne xaalis waaye keroog sa bis lañ ma Abdou dugalal naa la sa orange money nangam maa waaw yaa ngi toog dugalal naa la sa orange money nangam ndax ndax ndax nag may naa la lu ne waaye tey jii moom danaa la may ba nga xam ne may naa la ñim doon may man lan li boole naa la ak ñoom kon yàlla yàlla def la jàmm heure bu ma la gisee sama xel ci loolu lay dem baa doon lay teral mu bañ koo xam man as góor laa ku ma teral ma xam ko te ku ma ma wax ko sëñ Xaadim mii dem man ak moom ñoo nekk kër Askia ndax Ngoy Fall soxna Askia yaayam dafa wàññeeku dem moo yoroon lépp Alassane Mbaye laa àndal ñëw fekk ko fa mu yor lépp nit nag buñ la wóoloo yowa buñ la wóoluwut yowa buñ lay waaj a wóolu ci yow la waaye yow wóolu nan la ànd bi ngeen àndoon ci Serigne Saliou Mbacké yàqoo leen ko moom ngeen di tiituroo fu ngeen toll moom ngeen di sagoo fu ngeen toll mooy seen ndam mooy seen garaat mooy seen personnalité kon yàlla leen yàlla sàmm taar leen tawfeex yow mii yaa baax nag bala maa ñëw ci yow damay sant ñii daan doon sant ndax daan mii maa ngi moom ñoo bokk lépp bu naawee ma naaw deret boobu setalu ko boo ko bëggee setal yàpp yaram day yàqu te maa ngi moom ñoo bokk deret ku mu sant maa la war a sant ku mu gërëm maa la war a gërëm war a woo yëgal la lii war a woo kon yàlla na yàlla def jàmm ñii nga doon sant muy ñoom Cheikh Abdou mii ñoom Ndiaye alaaj góoram bu maa ngi lay ziare liggéey bu rafetee borom fekk ko yow yi jàpp nga ci lépp dan mii laataa may xam ni maa moom ay mbokk lan daan gisee yow mii yaa ma njëkk a wax dan yéen a bokk lépp ñii nga doon sant ñoo ab lay naar ñoom ñoom ñoom ñoom Cheikh Abdou mii euh, tubaarikàlla ñoom cun bigit yéen nag waxuma la sant gi leen sant waaye damaa bëgg ngeen futteeku xam ni nag engagement bu ngeen jëloon ci li yëfi jàmbur lii seen yëfa jël leen ci engagement xam leen yéen a ko moom bu demee seen yëfa bu taxawee seen yëfa waaye nag di ngeen cee war a taxaw def seen yitte ndax nag bu njëkk Touba da nga daan toog événement day jot tabaski mbaa korte mbaa màggal mbaa laneen nga ni man kat damay yónnee ndakaaru woo alo Dakar bi te alo Dakar boo ko wooyee kaala euh, bu la demee marché seng jëlal la bagage da ko fay xaalis bëri léegi fay amatul da ngay jël taxi taxi yomb na mbaa nga toog wootee ci numéro yi livreur bi moo lay indil bagage ba sa kër te doo ci am benn pertement te dégg nga Tawfekh li mu wax euh, daan nag la waykat bi waxoon sëñ Fallou jag jagadi ku jagul demul ni di Fallou nga fay jagal ñi jagadi moom mii mooy jagal xale jigéen yàlla dogal yow yaay jagal xale jigéen yi bu nu ko nangoo yaa di jagal bu ko nanguwul jagal ku la fi teggi nag ut keneen ko koy jagal du jag yow mii yaay jagal xale yi Tawfekh jërëjëf yow nag yow sang baax dama koo waxtaanee ba ba ba mënatuma cee wax yow sax xam nga ci dara man du ragal du ma naa feq du baadoo la man giwul piir laa te nu nit di def ba xaalis maa ngi koy def di am xaalis nag kotu xaalis moom am naa ko xaw ma lu ma amul doy bokk ci. kotu fexe baay ma am xaalis am naa ko man Abdou tab giwal laa aboyaankat laa loolu rek laay wut lu ma amee xaalis te am naa code yi te koy am kon lu ma wax ci dëgg la ndax sama nawle mais yow kuy wër nit ku baax bu ñëwee ci yow na la téye fukki loxoom ak juróom yow xeeboo bisu kenn lu nit maanaam lu mu mën a doon bu la ko waxee nga ñëw barke Seydouna Muhammad yow mii yaa dis gor kuy jàpp gor bu ñëwee ci bu la teggee jàppul gor yow mii yaa dis gor yow mii yaa nite yow mii yaa bëgg lu baax ku ne xam na ni suba ngay tudd tey bu la neexoon am nga ngànt te boo ñëwul woon dan fekk nga ko fu ne waaye da nga lu dan nekk danaa ca ne ndax nit nag bu dee def yëfam boole na ca waroo ko xeeb de nit nag boo ko xeebalee ñett yi rek xeeb nga ko sëriñam soxlaam yitteem boo ko xeebalee rek xem nga ko ak koo mën a doon ci na boo xeebalee nit xeeb nga ko yow mii yaa baax yàlla yàlla sàmm la yàlla yàlla aar la yàlla yàlla wéral sa baat tawfeex ku lay séntu ci ginnaaw yàlla na na juutu moom nit ku baax nga barki sëñ Tuubaa yàgg naa la koo wax ci weeru koor ñaar fukki fan ci weeru koor yi wax naa la ko waa daan nee naa tawfeex yow ku baax nga te duma ma jug di ko wax nag yàlla yàlla sàmm la yàlla yàlla aar la dan bég nañu sunu xol sedd na nit ku baax ga nit ku bëri valeur bég nañu xaadim sunu xol sedd na lool yàlla yàlla sàmm yàlla yàlla aar bigit bi daal mi ngi nii euh, bëgg nañ ñëpp teew euh, yen ñi nga xam ni di ngeen koy am na ñoo xam ne buñ ko jëkk bu leen ko jëkkee xam du ngeen ko xam ndax ndax xale yi dañuy bëgg fu baax fu nu am dañ koy côté yow da ngaa baax waaw dañ ciy def côté te loolu nag damay bañ dama noo am na ñoo xam buñ ko jëkkee xam duñ ko waxal keneen loolu nag laay dawal yéen ñi nga xam di ngeen a bëgg lu baax daw si leen ngeen ñëw bu leen wan bu leen kenn yóbbante bu leen kan naan naa la fa yóbbu daw si leen ngeen ñëw laa wax kontaan nan dan sunu xol sedd na yaa ma tax a jóge Ndakaaru ñëw ndax yow maag yow li nu bokk daa bëri ku ne xam na ne Alassane le 26 la anniversaire am fi ne amatuñ jot chaque jour bu nu xëyee ñu ngi këram waaye yow loo nekk rek maa ngi ca barke Cheikhul Khadim boo ko doon defee fii ba kini koro Guinée Bissau wala Guinée Équatoriale dinaa la fa fekk barke Seydouna Mouhamad euh, Thioune jërëjëf yal na yàlla sàmm la yal yàlla aar lii nga def ak mbokk la euh, baax lu baax la lu baax moom ku ko mën dee ko def te lu baax ku ko mën dee ko jéem jërëjëf kontaan na la jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké jërëjëfaat Serigne Saliou jërëjëfaat sëriñ becco maa ngi siyaare sëriñ Muntaxa Mbakke xalif général di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér maa ngi siyaare sëriñ Moodu Menda Fall xalifab sunu maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér maa ngi siyaare sëriñ seex mu sëriñ saaliw di ko ñaanal mbàkke mu yàgg fi lool ak njabootu sëriñ saaliw gi te wér lool maa ngi ñaanal sëriñ saaliw ndigal cuun jàmbaari seex becco ji di ko ñaanal mu yàgg fi lool ak mbooleem njaboot ci si barkeb sëriñ saaliw mbokki taalibe yi mbokki jullit yi waa Touba ndax kat maa ngi xolub Touba ngir Serigne Mouhamadan Mbakke bu ma nee Serigne Mouhamadan Mbakke mooy Serigne Mouhamadan Mbuub moom Serigne Saliou maa ngi siyaare Serigne Mohamed Mbuub di jàmbar lool di bërëm pësiif léegi la ma diis dey ne ma sa cant gi dey dinaa fa ñëw nu ma mës sa dikkee daaru ma ne ko mbakkee mu ne ma woo ma ñu waxtaane ko loo sa bëgg ma def ko Cheikh Mohamed Mboob moo ma ko wax maa ngi sant man ko bañ ma wax bul def ndax lu waay def ma wax asgor la waaye li gën a yéeme mooy cant gi daanaka ñaari weer ci kanam maa ngi bëggoon a gis sëñ Alsaan Alsaan Mbay samam xel damay wax rek li ne ci man dan tuuti rek samam xel daa ne woon day def lu baax te sabtug Sëriñ Tubaa ku ko woo mu ñëw fii maamoon yéene lool mu yëg ko kon dan buub gis naa ndawam te sa cant gii laa ko gisee waa góor muhammadan yow day lu ma nar a wax si yow ma luum dan buub yéen micro bi ñëpp may dégg te man du ma waxantu dara jëru lu ma ko ci àdduna billaahi du ma waxantu du ma wax lu ma gëmul man noonu la ma sëriñ Saliou yare man mii la sëñ Béthio njëkk a jël jox sëriñ Saliou jamonoy sëñ Abdou kon du ma wax lu ma gëmul tawféex Mbaye bala maa dugg tuuti si Mouhamed Mboup ma wax si Tawfekh wax nga ko léegi tawféex day nit ku baax Mohamed jëmm ju baax a gi li nga wax léegi Abdou li nga wax si tawféex lay dëggal tay man maa di magam te li ma wax du ma wax lu ma gëmul nit ku baax a ngi ku yaatoo ngi ku bëgg ñépp ngi ku fonk ñépp ngi nii tawféex di nga wér di nga fi di nga yokk di nga yàgg ndax si yow day sëriñ saali wala yar maa ngi koy ñaan si barkeb Cheikh Béthio Muhammadan yaaye nga bi bitig bu nu mel nga wooma marché seng ma teew fa wax la la ma gëm waaye ñaanal la sama biir xol kon bu ma toogee ba ne Tuubaa ma ne la kar nga wuyu ma ma ne la waa Mouhamed euh, dan buub namm naa la nga ne ma tey day damay ibbi sama bitig bi fii si Touba en face garaasu Daara Jolof ma ne la moom kat dama doon dem Ndakaaru waaye yow dinga ma jaral ma toog ñëw sa bis boobee ngir ni nga mel si man yéen fami mbuub barke Cheikhul Khadim ba sa jigéen di sa mag ñoom ñépp muy fami mbuub yàllaa dogal ma bëgg leen ñu bëgg ma te Serigne tax kon doo woote bis bu nu mel ibbi ko adduna war koo xam waaye yow ab murit nga yow ab saadeex nga da nga di gone te Serigne Saliou yar la Serigne Saliou yar la gërëm la nga ñëw takk sa ndigg am jom lool ba li fi xew xew fii mooy lii nga xam ne sëriñ Touba jagleel na la ko dama ne yow mën ngaa am lu ne li nga wax léegi si Mouhamed ngir xel mu rafet nim lay teg man maa toog muy waxtaan ak yow man dama bopp seen biir ndax yàlla dogal ngeen bëgg ma kon Mohamed man day am naa mbég may woo waa Touba dinaa def vidéo tas ko ci àdduna ndax yow àdduna la war a jàppale dan boo amee milliard ñëpp am ko jayuma la soxol daa rafet da ngaa baax da di murit gëm Serigne Saliou bëgg ko doyloo Seex Béthio waaw kon Mouhamadan ñi war a jël kàddu yëpp bari bu ma téye micro bi di sar duñu fi jóg waaye moom day Mohamed Mbuub man day am naa mbég ah, Serigne Khadim mii Serigne Khadim Ndiaye mii maa ngi lay seereel kóllëre gu ma am ak man tawféex tawféex mbaay da ngaa bëgg a dem yaa xew la suba waaye may ñu tuuti ma daaneel te jox la yow kat bu ma dee wax nga ne bërët dem danaa met dana ma met waaye yow tawféex yow nit ñee la safoo yow Serigne Saliou def lii mu def si yow sëñ Béthio def ko fi wootee fu waay wootee ak fu mu mën dem toll nga taal sa dem fa ndax xam nga ne li nga am nga jël lépp delloo ko ko kon yow waroo dem ah waaw kon batax tax duma sar sarale su koy mbàkkee maa ngi lay siyaare tey siyaare mboolem góor yàlla yi fi ne waaye gars yi mbokki jigéen ñi laa biteeg bi bitig bii dee leen si sol solo dee leen fi dikk publicité leen ko na jàll na wër àdduna na wër mbooleem li wër Touba ñu ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp di ñaan si barkeb Serigne Saliou bitik bi de yàlla na gàcceel bu fi mas a jaar Mouhamadan maa ngi ñaan si barkeb Serigne Saliou nga mucc maa ngi ñaan si barkeb Serigne Saliou nga wér maa ngi ñaan si barkeb Serigne Saliou teew giñ fi teew wàcce fi alquranul karim jàng fi xasiday Serigne Touba yi waxtaane Serigne bi ah ma sa yoon wa maa ngi ñaan si barkeb Serigne Saliou mu gàcceel gu fi ma sa jaar loo fi teg mu ne fëlëng dara dum fi desati loo indi rek yàlla na ko Serigne Saliou jaral si barkeb Cheikh Béthio ngeen baal ma kon ah, ñu ñu ñu ñu bégal Ndiaye Lo ci soppe Saliou bi ci boutique toogal ñu def ko ci lu gàtt rek ndax ku ne xam na ni am na ñu may xaar ci kër gi sañ Fallou am na may xaar te boobu ba ñu ngi toog ndeysaan ndax damay tudd suba doonte sax defuma dara ndax yëglewu ko waaye nit ñi li salaam wax rek boo dee jëflante ak ñoom ku ci yëg sa biir rek day daal di feeñal yéneen yéen soppey saaliw yim ne ci seen xol yéena moom lii ndeway wi yéenay borom yéen soppey saaliw ana soppey sëriñ saaliw mbàkke yi waa ana soppey sëriñ saaliw yi ndeway wi yéenay borom ana soppey sëriñ saaliw yim ne ci seen xol yéena moom lii ndeway wi yéenay borom seen xol mbaage na moom lii ne way bi nay borom njaay loo yi na moom way wi jaay leen ci way wi yee na moom way wi yee na moom way wi jaay leen ci way wi mali du kat leen tey ma way sëriñ Saaliw Fatima xol mbàkke yéena moom lii ne way li yéena billaay saalixiina yaa ngi yaay booy ak saalixaaja saalixiina yaa ngi njaayloo ak saalixaaja yéena moom lii nde way wi yéenay boroom mbàkke yow moom di gën a moom lii nde way wi lu baax ma jox la ma way la man lu baax ma jox yaa ko yelloo sunu way sëriñ saali mbakki yow mbakki na moom lii la way bi Malik mag ñàkku may eer waaye dama man waaye dama xër ba ma gis mu neex Mbàkke laa ko yéene Mbàkke yow Mbàkke na moom liggéey ndeway wi yéena ay sëriñ Saaliwo moonu saf ba nu dëgg la sëriñ Saaliwo ana soppay sëriñ Saaliwo sëriñ Saaliwo moonu saf ana ñu mu saf sëñ Saliou fu ma ni damay yëngal ma yëngatu ay dangu fu ma déggee tuuram man damay yëngal ma yëngatu ana sa pay borom jàppandal fu ma déggee tuuram turam yëngal ñu jógal yëngu ñu yëngatoo Serigne Sall ana sa fay borom jamono ku turam yëngal ñu jógal yëngu ma yëngatoo say bata Mbàkke mu Serigne Béthio ku turam yëngal ñu jógal yëngu yëngatoo mbàkke naa la fi way yaa teral jam ñi yaa sigil jam ñi lii lépp yaa tey nanda naa la way sëñ woo ma sa borom borom jamono fu ma déggee damay yëgal ma yëngatu moom Seydou Sadio na sab cant yàlla rek ko ko mi nag bisan ñu naan ma ngay wanewu askiya Touré yàkka lii nga am ku am dëkk wax nanu wax gaañi wax leen ba xutiku askiya ture cant ak wanewu askiya la la ko ko xam réew mi nag ko ñu naan ma ngay wanewu askiya yaa kayay wanewu ture ni nga am ko dëkk wax nanu wax gaañi wax leen ba xutiku Muhammad laata woon na nga jëf aski yaate boo jëfee na nga wax ture li la yàlla defal xamal ni cel di cat wax ji doonte cat la ci ñun dan bub ni kon di cat la di gën di wax di yokk bu dee cat nan ñu jàpp. li wax du yokk mu dee jar di jag di jag nan mu dem. wax ji dul di jëm la ci ñun. ay na dul di jëm la ni ko. li dul di jëm la ci ñun. ñee la ni ko. wax bi yokk mu dee jar. nan ñu jàpp. li wax du yokk mu dee jar bu ti. nan ñu jàpp. soxna Fatou Diakhaté. yow de gën nga waay. ak kii yaa tuddee. soxna Fatou Diakhaté. yow de gën nga waay. ak kii yaa. jërëjëf loolu dama ko doon may sama papa askiya Touré bu baax mi donte jëmmam teewul ci jotaay bi waaye moom ci jotaay bi ndax muy dan bi Mouhamed bi ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaare bu baax di nuyu Dan Mboup waaye nag di nuyu Serigne Saliou Thioune ñu ngi leen nuyu baax Thioune waaw yow dangay dangay sama doom bàyyi ndax man Thioune laa sant euh, baas bi li muy bari bari yaa fi dàq aw sant kon Thioune ñu ngi lay siyaare bu baax waaw waaw maa ngi nuyu ñëpp nag di leen siyaare di nuyu Alaaji Njaay njaayloo mii ma àndal di nuyu wañaan mu moom yi toog waaye nag di nuyu euh, ki nga xamante mooy Abdou Salaam maa ngi koy nuyu baax di ko siyaare di wax gars yi ne euh, dafa am loo xamante nag dañu ko xamee muy kontaan nañ ci abon yi ak semi waaye nag kontaan nañ ci cosmétique bi waaw ndax ki nga xamante ni mooy salaam mi day suñu waay fépp foo xamante ni fekk nañu fa dañuy teral njaay te ab géwal la te ñi ay géer kon salaam ñu ngi lay siyaare jërëjëf kontaan nañ démb maa ngi lay gis ndox moo doon yóbbu maa ngi koy seetaan ñëpp di wax sax mbaax yàlla na la yàlla fay waaw di wax ne doom day yow dañoo bokk koñ alom nga waaw mais comme ni nga ko waxee rek ñin dafa am loo xamante ni muy Touba gii lépp lu waay def rek wooñu du la laaj dara barki Serigne Saliou ndax lii ñu ñëw nii duñu keneen woowoon duñu keneen woowoon man boog laax de te li nekk ci man moo nekk ci njaayloo du ma fayul 500000 wala 400000 barke Salatul Fatiha du ma déplacé wu damaa yor bitig di liggéey sama bitig laa tëj ñëw waaye nag du ma ñëwee moom du ñu woowee ci Touba dañuy ñëw ndax xañ na du ko doon defee feneen wooñu mën a ñëw të waaye nag fii de suñu dëkk muy Touba te lépp lépp loo xamante ni nit indi ko fi rek def ko fi rek ñin ko ko defal kon vraiment lii moom ñu ci kontaan baax a baax di wax ne képp koo xamante ni daal ak foo mën a nekk muy Touba ak fu mën a doon mën ngaa ñëw fii ci cosmétique bi doo ñëwee incha allah rabi di nga fa am ay diw yu baax yoo xamante ni macha allah tur wi la mënta wax moo tax da am diw yu baax yoo xamante ni macha allah king cosmétique king cos king king cosmétique waaw xam nga tur bi français bi mooy king cosmétique waaw king cosmétique daal mi ngi toj réew mi <laughs> waaw king cosmétique daal mi ngi toj réew mi kon ñi ngi wax ne wax dëgg yàlla kontaan nañu baax baax baax ñun fii lañ am muy Touba fi lañ juddoo fi lañ yaroo ay doomi bawol lañ ay sans bawol lañ li ñu nekk duñ si jug dëkk yi li ñu bari bari bari bari fii lañu bëgg fii lañ bëgg muy Touba kon nag ku fi mën a nekk ak lu mën a xewle du ñu woowee muy cant wala lu mën a doon dañuy bàyyi suñu lépp ñëw ndax si dëkk bi lañ dëkk muy tubaa amuñu fenn lu Touba tubaa la ñuy tiitaroo moom la ñuy safoo kon nag Kuskot Musique gi du ñëwee fii vraiment jërëjëf jërëjëf waaw kon mi ko Ndiaye wax na ko muy loolu rek jaajëf <laughs> Ndiaye wax na ko.